وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن وجهت كلي إلى ذي الفرد والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن حمدي وشكري لباخ لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن هداني الله بالماهي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتم الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني وكان لله بالتبشير والأمن بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxaabatihi algurri almayamin wa ala xayri xadimihi dil xabli almatin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokk julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi nu santee sun borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara dee ndokkeel di ñaan sëñ Tuubaa Seex Muhammadu Muntaqa sun borom yàggal ko fi lool yàggu ko ànd ko bi wér maa gële mboolem ay naalam àggale mboolem ay yéeneem di ko ñaanal njabootu Sëñ Tuubaa waaye di ko ñaanal suñu bopp yi nun taalibe yëpp di ñaanaat suñu eh, mbas mi nga xam ne moo ne ci àdduna si bu yàgg ba léegi <coughs> suñu borom mi nga xam ne mooy dogal moo fi indi mu jële ko fi eh, dellusiwaat àdduna eh, dellusiwaat ak dal ak wér ak sago ci àdduna sépp di deseen fii seen télévision Lamp Fall ci seen émission xam sa diine bi nga xam ne baaxoo ngeen ko am àjjuma ju nekk ci waxtu wi ci kàddu seen bokk Sëriñ Mor Mbacke tey ñu dikkaat ci beneen tomb boo xam ne dañuy delloo ci jikko yi muy benn jikkob lislaam boo xam ne bu am solo la di jikkob tasawuf mooy li ñuy tuddee ak sàmm alwaraamu te mooy ak sàmm mu jikko joo xam ne jikko lu ju am solo lool nekk jikko ju tedd ju màgg bokk ci jikko yi nag diine jii di diine lislaam lislaam jàngale ko mu jikko joo xam ne bu ko nit ki jikkoo ci la léppam di sell lekkam naanam dëkkuwaayam léppam ay jëflanteem ak léppam ci la diine di sete wicc ci la diine ki di sell nit ki bu amul amee ak sàmm ci la ak eh, diineem nekk di diine ju set wicc ju sell ju dara raxut ci la ab deram tam di sete day doon borom der bu ñoom bokk ci jikkoy gaay yàlla yi nga xam ne waaye melokaan ci melokaani ahlul fadli wa sharaf mooy mooy nit ñu baax ñu fi nekkoon bokk ci liñ leen di tagge waraan nag te mooy sàmm mooy bu ñu ko doon tënk ci benn baa mooy feggu ci lépp lu xaraam ak génn ci mooy koo xam ne du def mukk lu xaraam bu ne ku sàmm mooy kooku mooy koo da koy bàyyi mutlaqan du ko def du ko jege waaye nag am ay mustalahaat ci ay ay ay ay leeral ak i teqantel yooyu borom xam-xam yi indi ci ci wuute donte firin waay wuute waay maanaam ñoo ci ñoo ñoo ñoo ca ñoo ñoo ca ñoo ca yem ñoo ca bokk déggin maanaam yëpp yenn la wala menn la am ñu wax ne alwara taruku maa yaribuka wa nafyu maa yaibuka wal axdu bil awsaq wa xam lu nafsi alal ashaq mooy sàmm mooy bàyyi lépp loo sikki sàkk lépp loo xam ne ko sikki sàkk amu ci lu la wóor ba xam lu xaraam laam lu xaraamul laam lu baax lu baaxul la nga ba ko waaye dàq ci sa bopp lépp lu lay ayib lu la mën a jural ayib ci sa der mbaa ci sa ci sa ci sa genn fànn jàpp ca la gën a dëgër mooy la nga xam ne wóor na ne lii moom lu baax la wóor na ni lii xaraamu li wóor na ni lii lu baax la lu dagan la nga jàpp ca loola ak nag euh, diis diis ndax bakkan bakkan dafay dafay ko bañ lu diis tey dafa mel ni bàyyi lu xaram dafa dafay diis ci bakkan kon nga nangoo yan sa bakkan diis diisi bàyyi lépp loo xam ne lu xaram la am ñu wax ne huwa tarku ma la ba'sa bihi xadar mi ma bihi bas am ñu ne sàmm daal mooy bàyyi lépp luñ ne garaawut ngir moytu tàbbi ci lu garaaw ndax koy def luñ ne garaawut nga def rek bu yàgg nga tàbbi ci lu garaaw mooy ko bàyyi lépp luñ ne garaawut nga nga bakko ba ngir ngir moytu tàbbi ci lu garaaw rek am ñu ne tarko ma ma yox chadaruhu fil axira am ñu ne sàmm daal mooy bàyyi lépp loo xam ne mën na laa jula lor ëllëg bis penc am ñu wax ne wa ijtinaabu shubuhaati xawfa min al wuquu fi am ñu ne sàmm mooy bàyyi lënt yi ngir moytu tab jul xaram lu lënt mooy loo xam ne xamoo lu ci atab lislaam xamoo lii ndax xaraam na ndax lu ñu sib ndax lu dagan la ndax day doon loo xam ne benn yaxu alxuraan wàccu ci maanaam ba muy day day lu bees loo xam ne loo xam ne ba alxuraan di wàcc amagutoon ba tax alxuraan addu ca eh, yenn saa ca ndax ba muy xew fekk na fekk na yenn saa si jóge fi kon loolu la nga xam te amul benn benn eh, delluwaay buñ ko mën ko mën a delloo delloo ci ci yi alxuraan addu wala xadis mu ñu ko ballulu benn at ci alxuraan xadis loolu la ñuy tuddee lu lënt ñu nag sàmm mooy nga bàyyi lépp lu lënt loo xam ne leeru la xaraam rek danga nga ko bàyyi ngir moytu tàbbi ci xaraam xam ñu ne alwaraamu alxuruj min ash-shahawaati wa tarku sayyi'aat sàmm mooy bàyyi mboolem bànneex yi ak ñawteef yi kon nga gis ne waxin yu wuute yooyu yëpp prime wuute waaye maanaam yu mel rekk la mooy nga bàyyi lépp lu dul noona rek ngir ngir moytoo def luy noona su ko defee kon sàmm mën nga ne kon mooy jox mboolem wari gar yi mooy la lépp nga ne ca yàlla gàll ci nga def ko bàyyi mboolem yu xaram yi sori mboolem lënt yi ngir ragal yàlla ak jaamu ko moom mi borom asamaan suuf moom mi nga xam tagg na aw melokaan wala aw xeet ci ay jaamam te lam leen tagge sàmm gi dafa tabbi ci biir su ma wax ne gaa yi nga xam ne dañu dañu dañu dañoo sopp dañu dañu xiir lool ci ragal seen boroom dañoo sori ci ragal seen boroom ak ñi nga xam ne gëm nañ sunuy aaya yàlla mooy gëm nañu alxuraan ak ñi nga xam ne duñ bokkaale yàlla dara seen borom duñ ko bokkaale ak ko duñ ko duñ ko tollool dara duñ ko nirool dara ak ñi nga xam ne jox nañ leen lañ leen jox waaye nag seeni xol waxtu nekk dafay ruus tiit ngir xam ngiñ xam ne ak faw dañuy delluwaat ci kanamu yàlla subhanahu wa taala ñenn ñooñee am melokaan yi dal ñooy ñi njëkkante yu baax yi te ñoo jiitu it inna alladina hum min xashyati rabbihim mushfiqun walladina bi ayaati rabbihim yuminuun walladina bi rabbihim la yushrikuun walladina yuutuna ma aataw wa quluubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun an fi lxayraati wa ñooy ñooy njëkkante ñooy njëkkante yiw yi te ñoo ci jiitu it euh, sàmm nag làmb ay ngëneel euh, am it wàccuwaay wu màgg a màgg palaas bu kawe euh, ci biir diine muy loo xam tey jii nag tey jii muy jamono ji ñu nag lañ gën a aajowoo sàmm ngir fi yàqute tollu ci jikko yi tasaaroog lu bon lu baax néew gum néew ak jafe gum jafe jamono joo xam ne sàmm néew na ci lool wala sax fàddu na ngay wax mooy mooy amutul daanaka ci jamono joo xam ne doomu aadama mi ngi ci dayob xiif fuqule de fuqule goo xam ne wutin wa léegi seetatu ci dara nu mu amee rek moo indi rek tàbbi gu ñu tàbbi ci géej gi di dee moo war a jël gi jël yoon suy ngir ngir jàpp na Europe rek fa lañ mën a tekkee di leen jàpp otage fi na ji nag ñu tegoo ko di dee ci àll bi nga xam dañuy xam wutin wi bu dee ci biir réew mi wutin wi sàmmonte wuñ la ca digle dañ mel ni koy taxan guddi rek matt goor go go go bu genn loromu for xam ne do ca ràm doo ràññale lay jariñ ak lay lor la baax ak la bon la dagan ak lu xaram mooy dañoo dajal rek mel ni kuy buub loolu mooy li xew jamono ji nu toll waaye sàmm nag dafay loo dafay aar boroom di dox diggam ak tàbbi ci lépp lu xaram da koy aar ndox diggam ak jëfi lu xaram dox diggam ak gàttañlu ak sàggan ci warugar la ko yàlla gàll ci ay ay wari ay devoir eh, dafay daf da da a sàmm sàmm da da ko koy aar ci gàttañ lu ca loola ngir ñàkk ko matal waaye sàmm itam mooy yoonu mucc àdduna ak àlaxira ci la nit ki mën a sàmme der yi ci la ñu sàmme maanaam ci la ñu sàmme der yi ba du yàqu ci la ñu sàmme deret yi ba du tuuru ci lañuy ñu sàmme alal itam ba dee su ko jalgati di sab di nekk itam loo xam ne sabab la soo xam ne ci leen kii mën a jëfi njëkk ci lay mën a jaar jëfi njekk ci la mën a jaar itam nekk ko doylu koo xam ne lu mu am rek mu doy ko du mel du am jikko yi ma tudd léegi nga xam ne da ngay fuqale ci sa wutiin nga xam ne loo loo jot for waaye itam daf koy jural daf koy jural itam ak tab loxoom man mën na ko tàllal jëmi ndeyjoor jëmi càmmoñ ca la ko yàlla wërsëg mu di ko delloo ci yoon yàlla subhanahu wa taala di dimbale te yàlla rek tax waaye ci sàmm it ci la ñuy aare aw làmmiñ ci la ñuy sàmmew làmmiñ ci xiila xaal mooy wax ju amul njariñ waxi mbedd ci lañ ko sàmm itam ci jëw ci lañ ko sàmm ci ràmbaaj muy jaxase ay nit ba ñu tojantee bopp waaye tam ci lay mën a sàmm itam ba ba làmmi làmmiñam du ca jeqi mukk fitna ay fitna ci àdduna du indi ci la koy sàmm itam ba du indi wenn ay ndax làmmiñ mën naa mën naa tasum réew ci benn baat rek waaye yépp nag ci sàmm lay aaroo ba mucc ca mboolem yooyu yépp ci sàmm it ci la fuq lekk bëgg àdduna gu gu gu ëpp googu di mën a di mën a saafarawoo li ñu tuddee ixtikaar bay na naas muy nax nit ñi ci reyaande jaar ci seen kaw rawati nag bu dee commerçant bi nga xam ne day jënd marchandise moo xam fi ne yomb na <coughs> lu mel gerte fi ne nii nga xam ne day door ñoon nga jën ci lu bari stocké dem ba manqué ba ñëpp soxla nga génn ko jaayee loola soob loo neex ñoom loolu la ñu tuddee nag dafay dox diggante nit yooyu yëpp jikko yu ñaaw yooyu yëpp <coughs> jëleen ci xusayfatu bnul yamaan radiyallahu anhu wax ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fadlul ilmi xayrum min fadlil ibada wa xayru diinikum alwara ngëneelal xam-xam moo gën nga ngëneelal jaamu yàlla jaamu yàlla li muy baax baax baax baax nekk ndigal yàlla xam ko gën fi xam a gën jaamu yàlla waaye li gën ci seen diine nag di gën ci seen diine mooy sàmm loolu jaxle xadis bi ngeen la xam-xam moo gën ngeen jaamu waaye ngeen ci seen diine nag mooy sàmm xaakim moo gën xadis boobu ba tey jëleen ci abi hurayrata radiyallahu anhu wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya aba hurayrata kun wari'an takun a'bada an-nas wa kun khani'an takun ashkara an-nas wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'mina wa ahsin jiwaara man jaawaraka takun muslima wa akhilla ad-dahik fa inna kathrata ad-dahik tumiitu al-qalb eh, abu hurayra nen yoon saas yow abu hurayrata na nga nekk ko sàmm ba sàmmo day jàppale ne yaa dàq jàmm yàlla ni ñëpp na nga nekkit ko doylu soo doyloo jàppal ni yaa gën a sant yàlla ñëpp na nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp ci ngay door a nekk ku gëm yàlla dëgg dëgg dëgg ci la sa ngëm di door a mate waaye na ngay rafetal saw dëkkiin képp koo dëkkal kon da nga nekk jullit dëgg-dëgg te nga néewal ay ree ndax ree ju bari dafay ray dafay ray ab xol ibnu maaja génne na ko ci ay sunanam ak bayhaqi yi ku ñuy wax xabib ibnu thabit xabib ibnu abi thabit rahimahullah daa wax ne bari jullit nit bu mu leen yëm bu koy gis julli julleem bari lool mu bari naafila lool daanaka defanaan di julli bu mu leen yëm ki dëkkee koor fu mu tolli woor bu leen koor ga yëm waaye na ngeen xool ci ak sàmmam rek ak sàmmoom su leen gisee ne ko sàmm la mu àndal la ko yàlla wërsëgal ci jaam yàlla boo wax ne kooku mooy jaam yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg waaye ki dàq julli ci nit ñi dàq wa te boo xoolee ak sàmm moom zéro jàppal na du kenn laa yujibukum kathratu salati mri'in wala siyaamuhu walakin anzuru ila waraihi fa in kaana wari'an ma ma razaqahu llah min al ibada fa huwa abdun lillahi xaqa loolu la Habib ibn Abi Thabit wax moo tax shaayir boo waxoon ne aji tedd dëgg dëgg dëgg dëgg mbaax dëgg dëgg dëgg nekkul ci nekkul ci maanaam mbaax des ko xool ci aw jëfin lu may nit ki dafa dafa moytu lu xaram li fekk nit ki moytoogu lu xaram lu jaamu yàlla bari bari bari bari bari nekkagut ab sang nekkagut ku baax waaye su sàmmoo nag bàyyi mboolem yu xaraam yi kookee nag lañuy ñuy tuddee la ñuy tudde ci mi ne fi tarif mooy ku tedd ku baax ku sell laysa zarifu bi kaamilin fi zarfihi xataa yakuuna an ilxaraami afifa fa ida tawarraa an maxaarimi rabbihi fa haka yudaa fi anaami zarifa mu am nag ay namaasi ay namaasi mooy ay ay ay ay ay ay valeur ay royuwaay min ahlil wara ci gaa yu baax yi fi jaaroon yonent ya borom jikko yu selle doy nañ ay ay namaas yi ay ay royuwaay ci wàllu sàmm ndax sàmm dafa bokk ci jikko yi yonent yi al ambiyaul mursaluun bokk ci melokaan mandargay màndargay almuttaquun ñi ñuy tudde ñu ragal yàlla tàmbalee ci alxabib Mustafa sallallahu alayhi wa yi nga xam ne mooy soppe bi di ki yàlla yoon woon ci noonu nga xam mooy namuusaj bi gën a màgg gën a kawe ci wàllu sàmm di waay bi nga xam ne mooy royuwaay bi gën a rafet suñu boom joxuñ ni ko ngeen ñu roy ko doy na ci sëkk ci ci buñ delloo ci jikkoom ni mu sàmmoo woon ñëw na ci as-saxiixayn buñ ne as-saxiixayni nag mooy saxiixul buxaari wa saxiixu muslim bala maa jàll ma leeral foofu ne dañuy wax ne buxaari yu bépp xadis bu mu indi bu wér la muslim bépp xadis bu mu indi bu wér la waaye xadis yi gën a wér ci xadis yi xadis bi gën a wér mooy buxaari yu indi bu jàllee ba ca toppaan mooy bu muslim indi ñoom ñoo gën a wér ay xadis buñ dajee nag ci xaddis kii indi ko indi ko dafay gën a dafay gën a fedd li wéru xadis boobu ku ci ndafam ab saxiixu bopp maanaam téere boo xam ne ci la dajale xadis yam am fa muslim fa fa fa buxaari daje ay dajale xadis moo ñu tuddee saxiixu saxiixul buxaari yi fa muslim dajale ay xadis ñu tuddee ko saxiixu saxiixu muslim bu ne saxiixay ni nag moo ñaari saxiix mooy saxiixu buxaari ak muslim bu ne saa bu dégg ñu ne ñëw na ci saxiixay ni rek. mooy saxiixul Buxaari muy téere Buxaari bi indi bi mu def ay xaddisam ak saxiixu muslim muy téere muslim bi mu dajalee ay xaddisam nga xam ne lu ñëw ci saxiixay ni rek kon dafay tegte kon lu wér la ñëw ni ci as saxiixay ni jële ci abi hurayrata radiallahu anhu mu jële ci yonente bi salallahu alayhi wa wax ne man day dinaa jóge ca àll ba ñëw sama kër fekk tàndarma ci sama kaw lal sama kaw lal su ma ko yëkkatee ba bëgg ko lekk ma ragal ne a ah, lii kat mën naa am sarax la ma daal koy waccaat subhanallah ki gis tàndarma ci kaw lalam sallallahu xam nga néewut eh, ca tool ca tool ya néewut ca mbedd ba néewut ca marché ba waaye ca kaw lalam ba noppi nag mu ragal koo lekk ngir ngir ngir rek ngir sàmm inni la ataqallabu ila ahli fa ajida atamrata saaxitatan ala firashi fa arfauha li akliha thumma axsha an takuna sadaqa fa alqiha nga xam ne kon ragal gum ragal ni sarax la képp moo tax lekku ko ana gan sàmm moo gën a mat sàmm gu mel noonu te moo doon joxinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon doxinu saxaaba yi nga xam ne mooy ci moom la ñu copier seen jikkoog seenu doxin ba tey ñëw na ci as-saxiixayn ci euh, euh, baat boo xam ne Buxaari moo ko indi ci euh, nettali Buxaari jële ci abi abi abi Hurayrata yàlla na ko yàlla gërëm mu innal Xasana bna Aliyin axada tamratan min tamri sadaqati fa jacalaha fii fii fa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bilfarisiyati kix kix amma taarifu anna laa nakulu sadaqata nen xasan bnu ali mooy xasan mooy mooy mooy mooy sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy doomi fatima ak ali dafa mës a jël ab tàndarma ci tàndarmay sarax sarax yi dem ba teg ko ci gémmiñam yoon saas ne ko yàbbil yàbbil yàbbil xanaa xamoon ñun ahlul bayt duñ lekk sarax yonente bi ak njab ak ak bokk ci moom duñ lekk sarax ñoom hadiya la lekk euh, maam nag nettali boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo na ko nettali ab xisa bu yonente saasam nettali nga xam ne roy royu la lu lu lu lu mag a mag a mag a mag ci ci wàlluk sàmm mu ñëw ci as-saxiixayn jële ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na benn waay dafa mas a jënd ab pàkk ci jeneen waay bi jëndi pàkk ba fay dem ca pàkk ba fekk fa benn bu waatu or bu mag boîte bu def or bu fees fekk ko ci pàkk bi mu jënd mu jël bu boîte bi delluwaat ba ca ka ko jaay pàkk bi ne ko jëlal sa or bii man pàkk la jënd waaye jënduma or da ngay bu doon jamono ji dañuy dañ naan ak li di xéwal la waa ji ko jënd pàkk ba ne ko man dama laa jaay pàkk bi ak lépp lu fa nekk rek. gannaaw jëndoon nga pàkk bi kay kon la fa fekk yaa moom ñu jeñante ko jeñante ko kenn nangu ko jël te kenn ku ci nekk nag xëy na mën naa am sonn sonn goo xam ne soxla na ko lool waaye sàmm guñ sàmm xool seen diggante seen borom tax na kenn ko ci féetewoo ngir rek ngir seetal seetal boppam ak dineem ñu jeñante ko ba mujj ñu dem ci ab ab ab àttekat bu leen war nee ci àttekat bi mu laaj ne ndax am ngeen ay doom kenn ki ne ko man de am naa doom ju góor keneen ki ne ko man de am naa doom ju jigéen àttekat bi ne nañ jël doom doom yu ko jigéen di kii dencal ko doom yu ko góori kee dañ jël nag boîte or bi euh, valeur yi ñu ñu ñu ko ci seen ci seen mariage bi la ca des ñu sarxe kon ñaar nañu sàmm ñoo xam ne xam nañ ni kon buñ boolee seen doom kon lu baax rek a fay juddoo kon loolu misaal la namusaj la bu bu bu ama am solo ci wàllu jikkoy sàmm sàmm am ay mazahir maanaam ay màndarga ak melokaan ndax jullit moom dañoo sàkku ci moom mu nekk ko sàmm mu làmboo ji koy sàmm ci moytu tàbbi ci jépp jëf ju bon ak jëpp wax ju bon mbaa ju ñaaw ak jépp jikko ju ñaaw ju ñu gàññ muy jëf muy wax muy jikko eh, bu ci nekk da ca da ca da ca sori ak suufe day moytu wax ju suufe moytu jëf ju suufe moytu jikko ju suufe ak bépp suluk maanaam aw doxiin woo xam ne wu jëkkut la mu di ko moytu tàmbale ci cër yi ndax cër yi doomu aadama dénkaan la lu yàlla dénk ay jaamam yàlla mi ko dénk dafa bëgg nga sàmm ko sàmm cër yi boo doo ci jëf ëllëg lenn lu lay mën a jural jafe-jafe si sa borom subhanahu wa taala cër yi xéewalu yàlla la itam xéewalu yàlla gum la jox jox ko jaamam te cër yi da ngay xool ne mënoo coo ñàkk benn sa loxo bii mënoo koo ñàkk soo ko ñàkkoon daal di am jafe-jafe sa tànk bi mënoo ko ñàkk boo ko ñàkkoon daal di jafe léegi sa bët soo ko ñàkkoon daal di am jafe-jafe sa ba ba cër yi jeex kon boo ci jàkkee mu ñàkk mu jural la jafe-jafe ci sa dunduk àdduna kon xéewal la xéewaluk yàlla la jaam bi ko yàlla xéewali nag mu war a fexe ba di ko jëfandikoo di jëfandikoo cër yooyu ci li koy jariñ fii ci àdduna te di ko jariñ fële ci àllaaxira waa di ko jariñ ci dunduk àdduna dunduk ëllëgam te loolu mooy mu de mu de leen tàmmal di tàmmal cër yi aw yiw ngir ëllëg cër yi man koo seere fa kanamu yàlla subhanahu wa taala ci ci ci ci jëfam yu baax yooyu ak yëwam woowu mu doon def lam ca jëf ci lu baax lam fàggu ci jëf yu rafet ndax ëllëg cër yi dañuy seere boroom lam yu dana seere jaam bi ca kanamu yàlla ca la ca borom doon wax ci aw yiw wax ju baax nopp ëllëg dafay seere boroom ca lam ca doon déglu ci lu baax ni ko bët dafay seere boroom ëllëg ca doon xool la borom doon xool ci lu baax ci lu yàlla digle ni ko noonu loxoom itam daf koy seere ci lépp lum ci doon jëf ci aw yiw ak lu rafet tànkam di ko seere ca lam doon dox ci topp yàlla jëfi njëkk su jaam bi xamee lool na kon war a xiir bu baax a baax a baax a baax ci jàpp ay cëram ci lépp lu ñaaw ak lépp lu xaraam maytu ëllëg di xuloog cëram yooyu ndax ëllëg jaam bi dana xuloog cër yi ci buñ koy seereel lu ñaaw lu mu doon jëf muy waranteeg ñoom dañ koy seere ci kanam yàlla subhanahu wa taala su ko defee kon bàyyi bàyyi xel loola suñ borom mi koy wax ci alxuraan ne bis penc bi nga xam ne dañuy kaste gémmiñ yi wax loo cër yi loxo yi wax lañ doon jëf tànk yi wax lañ doon dox cër yëpp wax lañ doon jëf lañ doon fàggu ci àdduna alyawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun su moo del waxaat ci surtout Fussilat ne bàyyi xel bis bi nga xam ne ci la yàlla di pang dajale noonu yàlla yi ñëpp ñu jiite leen jëme sawara bañ leen indee nag seen seeni nopp mooy wax lañ doon déglu ci lu bon seeni bët di wax lañ doon gis ci lu bon seeni cër di wax lañ doon jëf mun naa lu tax jaam bi di xuloo cër yi naan lu tax lu tax ngeen dinu seere ñu ne ko ah yàlla mi wax loolu lépp kan moo na wax loolu te ko yàlla wax loolu da nga wax ndax suñ borom mooy ki leen bind ba ngeen amagut mu amal leen te ëllëg dangeen ngeen deesuwaat fi moom rek mu seet la ngeen doon jëf àtte leen te ba ngeen koy def nag nëbbu leen ko woon seen seeni nopp di leen seere seen jàpp jàpp jàpp jàpp jàppoon ngeen ne seeni nopp jàpp ñu li doon dégg seeni bët jàppuñu ñu lañ doon gis seeni cër jàpp leen doon leen doon jëf waaye da ngeen ngeen jottoon ci yàlla jàpp ne yàlla daal xamul dara ci li ngeen di jëf mbaa xamu ci lu bari loola mooy seen njot li nga xam ne moom ngeen jot ci seen borom njot la mooy la leen alak ba jur leen pertaange gii leen dal loolu su di wax ne wa yawma yuhsharu a'daa'ullaahi ilan naari fahum yuuza'uun xataa izaa maa jaa'uuhaa shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu ya'maluun waxaalu li jëlul bihim li ma shahidtum alina qaalu antaqana allahu allati antaqa kulla shay wa huwa xalaqakum awwala marra wa ilayhi turjaun wa ma kuntum tastatirun an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum li dhanni bi rabbikum ardaakum fa asbatum min al-khasirin ca sawtu Fussilat kon nga dégg cër kon ëllëg kon cër yi dana ñu taxaw ci kanamu yàlla bët yi naan ñun dañoo xooloon nangam nopp yi ñun dañoo doon déglu nangam tànk yi ñun dañoo dox jëm ci lu jëm ca nangam ci lépp te lépp doon lu xaraam loxo yi ñun dañoo laal lu xaraam la kon loolu jaam war koo bàyyi xel muy bunt bu yaatu boo xam ne incha allah dañ ci desiwaat eh, ci ajuma ba cay topp ngir mottali ko ndax sàmm jikko la joo xam ne lu lu am solo la lu ñu soxla lool ci jamono ji toll waaye nekk itam lu lu nu ñàkk ci su ci suñu valeur ci jamono ji yi dund kon mu nekkoon seen émission xam si diine seen mbokk sëñ Mor Mbacke nekk loolu leen ci euh, micro bi euh, ñu jox leen dig daj incha allah beneen ajjuma ci waxtu yi ci seen télévision Lamp Fall ñu naan li gën ci noonu yàlla nga sumbal defal dëppale ko ak li nu gënal. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh wajhatu kulli ilaati alfadli walminani abdan qadiman lahu bilfardi wassunnani wajhatu kulli ilaati alfardi walminani عبدا قديما له بالفرد والسنن حمدي وشكري لباخ لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن هداني الله بالماهي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتم الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني wa kaana lillahu bi tabshiri wal amani